de liste moom moo tane. waaw waaw moo tane parce euh, ñàkk ñëw bi. pour mhm. man. Mhm. Euh, delluwaat na si eeru euh, Macky Sall Karim Wade. Mhm. ak li ñu gis limitu Karim Wade ñàkk teew. dëgg la parce que ñële bi ñuy jël Karim mu nekk à l'extérieur waa PDS yaakaaroon nañu à part de là-bas dina impacté. Macky Sall mënul impacté à part de là. surtout que lu mu wax rek. ñii ñi ngi yàq daram te terewul mën a tontu. moi je crois que bu fekkoon. li mu bëgg a faj dëgg soxal na ko. Mhm. Sénégal ah soxal na ko. li ko mhm. metti mhm. parce que li mu wax dafa garaaw. bu fekkee jaral na ko loolu dafa waroon a ñëw teew. dès lors que teewul. mënoon na bañ a nekk tëdd liste bu nekkul tëdd liste. bu yónnee ay tragam du am problème. Mm-hmm. du am problème bu nekkuloon mm-hmm. tête de liste. Mm-hmm. mën na soutenir en tant que président d'honneur par exemple. la liste wax li muy wax. mais dès lors qu'il est tête de liste. tête de liste waruñu ko woyofal. tête de liste dafa nekk koo xam dañ ko tànn. parce que photom moom moo nekk ci bulletin yi. donc dès lors man dama yaakaar ni. ñàkk ñoom surtout que nag li gën a grave mooy. Euh, waxul Sénégalais yi euh, waxuñu Sénégalais yi li am. ni Karim Wade doon naxanteeg Sénégalais yi man la même chose. laa gis waa Macky Sall dina xanteeg Sénégalais dina ñëw tey jeudi dina ñëw ñëwul léegi boo leen laajee sax Macky Sall dina ñëw dañ la kan moo waxoon day ñëw mhm. Farba Ngom waxoon na day ñëw bi ke waxoon na ñëw donc la même chose mais moom wax na sur RFI que ñëwul waaw wax na ne ñëwul léegi leer na kon wax na ñëwul moi moi je crois que man si si pulaar bi waaw même pulaar bi sax gars yi dañ dama waxul waxul ñëwul de ah. dafa ni ce n'est pas à l'ordre du jour waaw mais nee na bu dee ñëw officiellement bu fekkee day ñëw dina ko annoncé donc mhm. les gens am na ñuy xaar ni dernière semaine dina ñëw mais en tout cas daal bu ñëwul. man je trouve que mais est-ce que lu ñu koy menacer quand même pour haute cour de justice bu ñëwee te am. man gëmuma ni mun nañ man gëmuma <laughs> loolu la ragal xëy na non man gëmuma loolu. Hmm. très sincèrement hmm. je crois que loolu waxu yàq der la. Hmm. Macky Sall xam na ni ñii bu ñëwee kenn du ko fi téye. waa Pastef xam nañ ni bu Macky Sall ñëwee duñ ko téye. bu ñu sonal si ay wax mais joxuñu ko benn garantie de. non garantie ba ban nga duñ ko mën a téye. parce que yaa ngi dégg seen directeur yi jege mm, kii ci Sonko di wax ne. waa mais loolu yëpp mooy mooy def na fi loo xamante ne. Ah, mooy c'est passible du de la haute cour de discours politique bi rek. waaw tegagoo haute cour de justice. Mm-hmm. xamaguñu loo reproché Macky Sall mm-hmm. officiellement ba ñu mm-hmm. gis ko. yooyu yëpp ay waxu campagne la rek. bu fekkee yow jàllal na la ko yow premier ministre bi wala président dugalal dossier yu demee noonu judiciaire ñu xam ni dugg na mais koo xam ne ñëw na nga téye si ban base nga un ancien président de la République. te mhm. nga xam ni haute trahison rek nga ko mën a téye. Mhm. lan ñu engagé pour loolu. Mhm. non nañu bàyyi naxante bi. Macky Sall xam na ni mënuñu ko téye ñàkk ñoom leneen lay dépendre. bëggul sonn peut-être que aussi. bëggul ñëw di am défaite boo xam ni. day yàq wayam parce que nag ñu waxante dëgg campagne bi ni mu demee. day mel ni Ousmane Sonko daf leen a jiitu. Mhm. <laughs> ñu waxante a bu baax a baax dafa mel ni. Mhm. sànniwul karawaas bi nag. maanaam raw na leen. waaw sànneegul karawaas bi mais campagne bu bu leer waaye nag ñu waxante dëgg campagne bi. Mhm. jiitu na leen parce jiitu bi loolu. bokk na am tête de liste boo xam ni. Macky Sall bu ñëwoon. man demoon nañ ba wax ma ni sax Macky Sall bëggoon na ñëw ànd ak Karim Wade. am na sax fu ma déggee ñu ne sax Karim moo ko tardal parce bi mu bëggee ñëw. Karim Wade moo ko ne xaaral ñu préparer ñëw bi mhm. loolu sax dégg naa ko mhm. mais yooyu yëpp boo xoolee li xew day mel ni demewul noonu mhm. dès le début je crois que waa APR wala takku wàllu dañoo xam ne bu ñu tànnul Macky Sall tête de liste dañuy tas ñu tànn ko dina tax ñu bëri toog parce que bu ñu tànnoon Abdoulaye Daouda Diallo peut-être que keneen dina mer daw wala du bokk tout ça boo tànnoon keneen ñu mer donc Macky Sall le fait ñu tànn ko tax na maam Diop toog Abdoulaye Daouda Diallo toog ñeneen toog mhm. mais à de là c'était juste pour mhm. ñoom seen biir mhm. mais pour les Sénégalais malheureusement pour les électeurs ak pour militants wu APR yi xala xalaatuñu leen calculé wuñu leen c'est ça en fait qui est qui est malheureux loolu c'est une cuisine interne ñoom la tànn seen biir tànn Macky Sall tête de liste pour régler seeni problème de division ak yooyu mais man li ma gis mooy tànnuñu intérêt mhm. militant wu APR yi mhm. nga xam ni boo tànnee tête de liste mhm. mais il y avait la possibilité tànn tête de liste bu fekkoon rek daaneel Pastef moo leen tax a jóg am majorité rek moo leen tax a jóg déjà de un même boo tànnee ku mel ni Aïssata Tall Sall tête de liste garawul dañ siy d'accord mais mais waa APR dañu ne tête de bi takk wàllu APR lay jóge te yow xam nga ni boo jëlul Macky Sall sa parti mais jëlal keneen maître Sidiki Kaba sax mën nga ko jël. Mhm. mën nga jël sax Modou Diagne Fada. un exemple mais du am unanimité loolu lañ bañ. aussi waaw mais yow mais yow yow Macky Sall unanimité mais ñëwul. Mhm. dès lors ñëwul rek. Mhm. man pour man wàññi na.